activité tey bi nag dañ ne woon léegi nañ ubbee mbégte ndax xale yi xale mbégte rek la ñu nag équipe yi qualifié woon final te Covid bi taxoon mënuñ ko fubal jël leen ay mayo jël leen ay ballon pour jox leen ko tey ñu woon autorité yëpp wax dëgg ñëpp lañ invité woon xam naa xat-xat yi dong moo taxoon waaw loolu daal moo doon ndajam tey bi ubbite la woon mooy moo tax ñu organiser benn marché bu moyen diggante Mbacké 2 ak euh, Mbacké 3. niñ ko niñ ko naalee daal mooy niñ ko commencé ni ñu eggalee ko ni football match moyen secondaire yëpp football élémentaire yi bëgg bokk yi bëgg a bokk bu ko defee commune bu ne danga nga génne benn équipe su fekkee bokk nga ñu def benn tournoi boo xam ne day am zonal cest à communes yi buñ paree dem commune dem arrondissement arrondissement bu ne génnee benn équipe muy bu ñu amee bu ñu ñetti arrondissement ak commune bu ñeent ñu fubal demi final départemental ak final départemental léegi euh, mën a mën a participer nag ci final régional ren nag li ci neex mooy final régional équipe bi jël P bi jël deuxième Diourbel mooy ñoo fekk si équipe bi équipe bi jël P fii donc en moyen en élémentaire comme en euh, secondaire donc innovation yi daal mooy équipe même daal mooy que tournoi yi jaar ci yoon ñu ngi woo ñëpp na. Ah, ren moom am na coupe d' afrique euh, du sport scolaire ma woo ma woo sama mbokk jàngalekat yëpp ñu bañ ko caaxaanee parce que ren am na ñu ngi ko war a fubé Addis Abiba comme président de la république dañ ko fa war a takkal moom moo jël présidence bi jour boobu dana am juróom-ñaari réew yoo xam ne Sénégal ci la bokk seeni xale sport scolaire ñooy dem fubali foofa la indi coupe d' afrique nag mën naa indi coupe du donc ñu bañ ko négliger bañ ko foyee bañ ko def affaire nawetaan nañ ko dëggal te élèves yi talent bu ne mën na ci génn buñ ne xale bi dafa dafa mënut a conjuguer mënut a rester histoire rek mënut a mënut a tekki am na ñoo xam seen tànk yi am na ñoo xam seen loxo yi dessin am na ñoo xam seen seen làmmiñ ci lañ ci lañ yore seen kër te wàññiwu leen dara donc sport aussi la même chose tey ku ne bëgg naa jur Sadio Mané kenn ku ne bëgg ngaa jur euh, euh, Ronald euh, Ronaldo wala Lionel Messi lan la ay tànkam moo ko may te loolu am na fii Sénégal am na ci Afrique surtout ñi nga xam ne ñoo gérer école yi xam ne ñoom peut-être sur le plan financier ñoom ñooy financé nañ ñëw bu dee école élémentaire cinq mille francs la bu dee école moyen secondaire moyen secondaire cinquante francs la par élève nga kon nga was ay fii versé ko loolu yi ñu jënd nii buñ ko defoon ñun dootuñu sax sponsor duñ seet duñ seet politicien duñ set keneen lii suñu fonds propre la maillot jën jën nañ dix jeux de maillot ak ak dix ballons te ma maillot de qualité la seize maillot la ak ak ak ak ak deux yu gardien muy dix huit bu dee handball bi la ak deux maillot de gardien sunu xaalis bopp li ñu doon cotiser malgré organiser nañ tournoi te ñu ñooy fay arbitre yi fay délégué de match fay ñëpp ñu yëngu ci kii bi lañ desaloon moom lañ jëndee lii kon bu ñëpp ñëwee yaakaar naa ne lii di ñëw dina mooy dàq beneen.